soit libéré dafa waaw voilà. yaa booy nga ñëw rek sànni ay kàddu moom tamit kenn la si yaay yi. waaw si biir réew mi mu am lu ko naqari. mu génn ànd ak samay doom ndax lii may kaas pour ëllëg pour samay doom a tax du pour man ndax man sama wàll wéy na ba pare mais comment se fait-il moom mu nekk fi 12 ans ba pare mu ne du dem fan la ko teg munul nekk il faut mu dem amal ñu ñu fal ko ñu neex loolu mooy dëgg. dañoo sonn tëj na doomu jàmbur yi ku wax mu tëj la. ku ku moom daal mook ay nitam wana nañ ba pata nañu dem nañu dem keneen ñëwaat ñun dañoo sonn surtout ñun néew si doole yi wuñu dara sonn nañ Macky Sall na dem dayal nañu na dem man mii man mii di ah na wax ba pare man mii di wax ak sama doom tëj ne ko un te deful dara innocent benn góor laa am sama xeet kenn musu leen tëj kaso Macky Sall moom a def loolu te moom laa voté loon il Ah, ah, ah, Macky Sall trahir na ma li ma def du ko baal si àddina sama mbokk sama deret sama doom sama taaw mu nekk benn góor mu dem tekk ci kasa bi Macky Sall ko ko baal na dem na dem loolu moo tax ma génn tey ku yaay ko man tey na nga génn. Mohamed la tudd Mohamed Macky Sall ko un an ko torturer. dafa doy. vous pensez que ça c'est Sall à chaque fois quand il y a des approches électorales il va emprisonner l'opposant principal il en a fait avec Khalifa Ababakar Sall, il en a fait avec Karim Maïssa Wad, il, en a fait également avec Ousmane Sonko. À notre grande surprise, il n'arrive pas à maîtriser le Conseil constitutionnel, qui par sens a validé la candidature de Bassirou Diomaye Faye. Et ils savent pertinemment qu'avec les échéances, avec la candidature de Bassirou Diomaye Faye, à midi, il va rapporter les élections à C'est pourquoi ils ont créé une histoire fallacieuse et artificielle être polyvalent avec le PDS et certains anciens politiciens pour étouffer le peuple sénégalais jusqu'au camp. Jusqu'au camp. Je lance un appel à tout le peuple sénégalais, ah à toute la jeunesse africaine, à toute la jeunesse sénégalaise de sortir et de combattre Macky Sall une bonne fois pour toutes. Je lance un appel et j'assume que Macky Sall libère le peuple, que le peuple sorte pour libérer le peuple sénégalais. Il dégage grève illimitée à partir d'aujourd'hui. Je lance un appel, moi je suis un formateur. Je suis un formateur au CP de Fatigue. Je suis à ma 15 année de service. J'ai servi ce pays-là. Quand je venais, tous mes parents ne voulaient pas que je vienne. J'ai dit qu que, je meure. Je préfère mourir que de rester. C'est moi. Je préfère mourir. Je lance un appel à toute la jeunesse sénégalaise. waaw mu nekkoon kaddu yenn papa yi ak yenn parents yi xam ne dañoo dañoo jàpp ne xool ba xam euh, fan la wanante di mu dégg tëb waaye di ñaan également askanu Sénégal jàmm nañ ko daal di def si si réew mi président de la république su jëree mu daal di euh, dellu ginnaaw si ndogal bi nga xam ne jot na ko jël également war na ko def jàpp ne également kilifa kilifa diine yi euh, kilifa aada yi kilifa si si jàngu bi ñoom ñëpp. Euh, ñuy xaar li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom moo nekk si réew mi gis ndaw ñi également génn nañ tamit euh, pare ne temm na ñoom na euh, ñoom seen bopp donc dañuy dañuy avancer nii rek mhm, donc mu mel ni policiers yi ñoom gendarme également ñooy ñëw barricade li nga xam ne moom mooy le le ginnaaw li nga xam ne. donc yéen a ngi gis askan bi également di di di di papa papa jëlal drapeau Sénégal bi yaa ngi gis lacrymogène yi si ñi ngi sànni ndaw ñi ay lacrymogène euh, ñu ngi sànni ndaw ñi ay lacrymogène papa jëlal ma ndax lacrymogène yi ñu ngi sànni ndaw ñi ay ay ay lacrymogène yéen a ngi gis saxaar si la situation euh, commence à devenir chaotique par rapport ak euh, li nga xam ne ñu ngi doon ko euh, njort mu am si réew mi ay jaamarloo entre les forces de défense et de sécurité ak ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, les les ndaw ñi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi. ñi nga ne moom mooy moom ndaw ñi donc dañu reculer waat papa jéem a jël beneen angle Gomis di di la nuyu waa Siweul TV di leen nuyu bu baax di ne réew mi nag moom moo toll ni fi ni mel ëllëg di suba altine député yi war nañ euh, dem amal seen i séance plénière si li nga xam ne euh, moom la xaarandi à l'Assemblée nationale un projet de loi ginnaaw euh, li nga xam ne ñooy esper électoraux yi njëkk si la leeral l' article 31 bi nga xam ne moom lañ nar a càmbar sa assemblée nationale bu Sénégal donc. donc dañuy avancé rek dox euh, digg ndakaaru euh, ànd ak askanu Sénégal papa ñu ngi lay nuyu <laughs> lay ñaanal jàmm bu baax euh, ñu jéem a dem dox papa jëlal saxaar seen si asamaan parce que ñu bàyyi dara nañ dox ba foofu noonu jëlal ko askanu Sénégal.